ñu ngi résidence surveillée mun munul génn mais danga foog ne ci coow li moom njiitu réew mi bu lâché du lest lu ci ëpp xëy na dal ak euh, ñu ñu ñu retrouver waat li nga xamante ne moom mooy euh, sunu sunu sunu jàmm dina dina am loolu moo tax loolu moo tax nga def loolu. xam nga bu tee da nga wax euh, lâché du lest li ma jàpp tey man yaa benn nit moo mun ñu génne ci situation bi. muy kan c'est Ousmane Ousmane Sonko. Ah, xam nga lu pourquoi. voilà très bien. waaw très bien c'est une bonne question. Mhm. xam nga lu tax moo ci mën a génne état du doomu aadama du man du kii du ko ak koo mënti doon ci biir Sénégal ak koo mënti doon kenn du la méngale ak état tey et c'est un appel que je lui lance parce que am na droit wu lancer ko appel boobu. Mhm. tey man li may xaar ci moom li may séntu ci moom mu tenir un discours d'apaisement dalal ay nitam. ñaan ñëpp ñu dellu ci dal toog parce que gis nga même guerre da nga dem ba ak mu am cessez-le-feu dañ naan nañ def cessez-le-feu pendant un mois pendant deux mois ñu waxtaan. mais n'oublie pas épée de Damoclès aussi bi nekk ci kaw boppam. mais épée de Damoclès bi du violence koy régler du ay xeex koy régler te gis nga le danger le plus le plus grand danger ci man li ma jàpp sama analyse politique ñu ko jege la xam lu tax bu ñu ko jege bu ñu nëbbante bu ñu waxantee li fi nekk. wóor na leen ni bare nañu ñu ko wër tey naan ko nañ def lii nañu def lii nañu def lii ñooñu ay candidat lañu à l' élection présidentielle. amuñu dara dara dara loo nga xam ni tere na te suuf ñoom ñu bañ am ay parrainage ou bien des choses comme maanaam ci partisan yi nekk Yewwi Askan Wi nga bëgg a wax. bien sûr ñooñu ngay donc am na ci ñoo nga xam ne tey bu ñu ñëwee élection suba la ñoom ñu bokk ci élection yi. et le pouvoir dans tout cela monsieur le nekkul ci kaa boobu.